gannaaw loolu noo ngi ñaan yàlla sunu borom subhaanahu wa ta'ala mu boole ñu saxal ci siraatal mustaqim boole ñu defal jàmm ci àdduna defal ñu ko yowmal qiyaam defal ko mboolem jullit bokk yi sunu fàttali tey inchaa allahu ta'ala mi ngi jëm ci lenn ci ay njariñ yoo xam ni joxe sa alal ci yoonu yàlla mbaa joxe sa alal te yàlla dongu tax am na ko lenn ci ay njariñ yoo xam ni génne sa alal def ko ci yoonu yàlla am na ko ci lañ bëgg a def sunu fàttali tey incha allahu ta'ala bu ko waxtu wi mayee danañ wax lenn ci ay mawaqif yoo xam ni saxaaba yi dundoon nañ ko ak di jël seen alal di ko joxe ci yoonu yàlla ak la leen ca fekk bu ñu ko waxtu wi mayul nu bàyyi ba beneen yoon ñu dugg ci loolu incha allahu ta'ala waaye tey ñu tàmbale rek ci njariñ yi nga xam ni joxe sa alal te yàlla tax am na ko ndax joxe sa alal ci yoonu yàlla ay ngëneelam bari na lool ay njariñamit <clears throat> ay njariñamit lu limu la lool lool dañuy tënk rek incha allahu ta'ala xam ngeen di borom bi tabaraka wax na ci alquraanul karim ni inna almusaddiqina walmusaddiqat wa aqradu allaha qardan xasana yudaafu lahum wa lahum ajrun karim yàlla nee na ñi nga xam ni ay saraxekat lañ yu góor ak ñi nga xam ni ay saraxekat lañ yu jigéen di joxe seeni alal di ko jiital ci yoonu yàlla ngir bëgg ci amuk pay nee na sunu borom dana leen ko fulandil alal jooje dana ko yàlla dana ko fulandi ba mu bari lool waaye it sunu borom dana leen defal ak pay gu kawe lool gu bari lool te pay ga mooy aljanna noonu la ko sunu borom tabaraka wa la waxe moo xam kon ngay góor mbaa ngay jigéen nga génne sa alal joxe ko ngir yàlla nee na sunu borom dana la ko fulandil ba mu bari lool waaye dana la fay ëllëg muy aljanna ju kawe lool noonu la ko sunu borom tabaraka wa taala waxaatee ca weneen saar wax ni man da alladi yuqridu allaha qardan xasana fa yudaacifahu lahu adcaafan kathira wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilayhi turjacuun yàlla dafa wax ni ana kan mooy ka nga xam ni dana joxe alalam jiital ko ci yoonu yàlla ana kan mooy jël alalam joxe ko ci yoonu yàlla te yàlla dong tax ana ku koy def nee na kooka su ku ko def ku ne danaa ko ko fulandil ba mu nekk ay fulandi yu bari lool te na ngeen xam ni suñ borom mooy xañ ku ko neex waaye it mooy yaatal wërsëgam ci ku ko neex waaye nag yéen ñépp nag ëllëg ci sun borom ngeen di delluwaat bu ko defee ñam xañoon ña amoon di wërsëg ña yàlla xañoon yàlla fay ñooña ak fay gu rëy lool muy njëggalug bàkkaar di nangug jëf di tabbal aljanna noonu la ko sunu borom tabaraka wa taala di defalee ñi nga xam ne ñi ngi joxe seen alal te yàlla dongu tax noonu la ko wax ci alquranul karim bokk yi bokk na ci njariñal joxe sa alal te yàlla dong tax mooy su fekkee la ngay joxe sunu borom dong moo tax da nga dajeeg payu borom bi dajeeg ngërëmam ëllëg yowmal qiyaam boo faatoo ndax ci benn xadis boo xam ne ñu ngi ko jëlee ci abu hurayra yal na ko yàlla gërëm xadis bi muslim soloo ko abu hurayra daf ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallama daa wax ni doomu aadama su génnee àdduna maanaam doomu aadama su su dee nee na mboolem ay jëfam ci àdduna dafay taxaw léppam lu mu daan jëf ci àdduna day taxaw bu dee da doon liggéey ci société liggéey ba taxaw na dootu ko defati moom bu doonub chauffeur la taxaw na dootul dawalati bu doonoonu tailleur taxaw na dootul ñawati bu doonoonub mason it taxaw na dootul tabaxati bu doonoonub baykat taxaw na dootul bàyyati waaye nag yonent bi alayhi salaatu wasalaam ni ba mu des ñett ñetti jëf a ngi nii bu ko daan jëf ci àdduna du taxaw day continuer di dem donte génn na àdduna kon xadis xadis a ngoog boo xam ne bu mat a déglu la ndax li ci nekk kon joomu aadama su génnee àdduna léppam day taxaw ba mu des ñett yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu ne ñett yooya ba ca njëkk mooy sarax bu mu saraxe woon te yàlla dong tax sarax boobu du taxaw ndax sarax ba fu mu mën a dem fu ne aw yiwam bu ca génne da koy fekk fa mu tëdd ca bàmmeelam da koy fekk ca bàmmeelam sarax ba du dàkk mukk ñaareel ba mooy xam-xam bu amoon doon ko jàngale ci àdduna nit ñi di ci jariñu xam-xam boobi du taxaw yiw da koy fekk fa mu tëdd ca bàmmeelam muy ñaar ñetteel ba it mooy doom ju baax ju mu amoon ci àdduna bàyyi ko fi doom ja di ko ñaanal ñaan ga da koy fekk ca biir bàmmeelam ba keroog àddunay tukki léegi nag boroom xam-xam yi wax ni sarax bii dul dakk ñu jël ci ay misaal nee nañ bokk na bi ci gën a màgg mooy doomu aadama ji tabax jàkka wala mu tabax jumaa ci alali boppam masalan kii yàlla may ne ko wërsëg mu mën caa tabax jumaa mbaa jàkka bu ko tabaxee day jàkka joojee mbaa jumaa ja doonte waa ji daa génn àdduna ku fa mën a julli ba keroog àddunay tukki julli googee waaja ku fa tabax dana ca am yiw maanaam ku julli ci jàkka ji mbaa ci jumaa ji waa ji tabax waa ji fa julli day dana ca am yiw dana am tuyaaba sun borom dana ko nangul waaye it ka ko tabax donte génn na àdduna yiw woowee waaj a am danañ ko ca jox wàllam mu fekk ko ca fam tëdd ca bàmmeelam ba keroog àddunay tukki muy benn ñaareel ba mooy nga tabax daara wala ekool wala benn taax moo xam ne nit ñaa ngi fay jàng alquranul karim lu ñu fa mën a wax ci alquran yiw wa dana la fekk ci sa bàmmeel mbaa nga participer sa alal ci jënd ab terrain boo xam ne dañ koy taax cim daara lu ñu fa def ci yoonu yàlla mbaa lu ñu fa jàng ci alquran mbaa ku fa julli mbaa ku fa taxaw waaraat yi woow wépp dalay fekk ca sa bàmmeel donte faatu nga mbaa sax amuloo lool lépp nga jënd benn kaamilub alquran jox ko ndongo daara mu jàng ca alquranul karim yiw wa dalay fekk fa nga tëdd ca bàmmeel donte génn nga àdduna wala sax nga fexe ba taxawal benn béréb boo xam ne nit dana fa toog di fa waaraate waaraate mu fay waaraate lu fa nit dégg jariñu ca dina la fekk ca sa biir bàmmeel doonte amuloo loolu yépp sax nga jënd menn mbàjj jox ko ku lot mu sàngoo ko ba mën a aaru ci sedd bi kooku sun boroom dala ciy fay donte faatu nga sax danga ca am yiw dalay fekk ca sa bàmmeel ndax dimbali nga nit ba mu aaru ci sedd bi mbaa sax nga jënd benn sànke jox ko nit ku amul mu takk ko ba mën a mucc ci yooyu kookee sunu borom da koy fay donte génn na àdduna li feek nit a ngi cay aaru ca sànke ba sun borom dala cay jox yiw donte yaa ngi si sa biir bàmmeel noonu la ko sunu yonent bi alayhi salaatu wassalaam waxee kon nga xam ni nit ki jël alalam def ko ci yoonu yàlla du taxaw donte génn na àdduna du taxaw wala bu loolu yëpp amut sax nga dem cab dëkk boo xam ni yàlla wërsëgalu leen robine nga gasal leen teen ci sa alali bopp teen ba képp ko fa naan danga ca am yiw donte génn nga àdduna boo génn àdduna it ku fa naan mbaa nga root ca jàpp mbaa nga root ca sang ca néew mbaa nga root ca togg ca yiw wa da lay fekk ci sa biir bàmmeel ka fa gas teen ba te yàlla tax noonu la ko sunu borom dogalee donte dub teen sax nga fekk ku néew doole nga xëccal ko ab robine ci sa alali bopp robine ba ku ca naan mbaa ku ca jàpp mbaa ku ca sangu mbaa ku ca togg yiw wa dalay fekk ca sa bàmmeel ba keroog àddunay tukki noonu la ko sunu borom tabaraka wa taala waxee dama ne xadis bi dong dong dong suñ ci yemoon ñëpp war nañ xam ni sarax njariñam ëpp na njariñam bari na bokki jullit yi waaye nu yemani foofu su fekkee sax amoo alal waaye am nga loo xam muy benn xadis wala benn aaya ci alquran nga jàngal ko ay nit ba ñu jariñu ca doonte génn nga àdduna it njariñ loolu dalay fekk ci sa biir bàmmeel boo xamaloon benn doomu aadama ba mu xam benn xadis kooko jël xadis ba di ca jëfandiku di ca jariñu di ko jàngalewaat ba àddunay tukki yiw wa dalay fekk ci sa biir bàmmeel bu loolu yëpp amul it nga am sa doom nga yar ko yar gu baax jàngal ko njàngin gu baax boo génnee àdduna doom ja di la ñaanal mbaa muy def lu baax dalay fekk ci sa biir bàmmeel kon nu yemani foofu ci xadis boobu bokk na ci njariñi sarax bokki jullit yi mooy day faj ki nga xam ni feebar na ba amatul pexe man de léegoo-léeg nit ñëw ni ma man de sama bopp bi day metti wala sama nangam ji wala man awma xam-xamu docteur ndax duma docteur waaye dama lay wax ni la yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na na ngeen faj seeni feebar ci sarax man dey bari na lool ñu ma ko wax ñu jël seeni alal di ci dimbalee waaye dañoo dem ba ba ñëwaat ni ma feebar ba deñ na ci man loolu lu mat juróomi doomu aadama jëflante ak naak ñoom ci loolu ba jëmmi jamono ñu ñëwaat ni ma feebar ba jeex na tàkk te xamuñ lu ko faj waaye nag dañoo jëfandikoo rek li yonent bi wax mooy jël seen alal te yàlla tax di saraxe di dimbalee dem nañu ba dellu siwaat ni ma feebar ba jeex na tàkk loolu lu mat juróomi nit mën naa leen cee lim man ku ma waxub feebar rek loolu la lay digal ndax yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo ko wax moo ni na ngeen di faj seeni feebar ci sarax nee na daawu mardaakum bis sadaqa na ngeen di faj seeni feebar yi ci sarax bokk na ca njariñi sarax bokki jullit yi mooy day défendre doomu aadama ji ci deegu ñaaw teyit sabab la doomu aadama ji am mujj gu rafet ci àdduna loolu yonent bee ko wax teyit dana dimbali doomu aadama ji ba du tabbi sawara ci xadis boo xam ne ñu ngi ko jële ci abi saïd al xudri yal na ko yàlla gërëm mu ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa waxoon benn bés jigéen ñi mu ni leen yéen jigéen ñi dee leen saraxe saraxe lu bari mu ne yéen jigéen ñi dee leen saraxe lu baree baree bari ndax gis naa sawara ña fa gën a bari ay jigéen lañ noonu la ko yonent bi waxee nee na gis naa sawara ña fa gën a bari ëllëg ay jigéen lañuy doon kon yéen jigéen ñi dee leen saraxe lu bari lu tax yonent bi digal jigéen ñi ñuy saraxe lu bari ngir bëgg ñu mucc ci mbugalam sawara ndax gis na ni sawara la fa ëpp ay jigéen lañ mu ni leen kon da ngeen di saraxe lu bari ba du ca mën bokk ca yéen ca ñooña kon gis na yonent bi gis na ni sarax dana dimbali nit ki ba du tabbi sawara moo tax mu digal ko jigéen ñi mu waxoon ci beneen xadiis it ni saraxe day ci boppam maanaam sarax jël sa alal joxe ko te yàlla tax dana la dimbali ba sun borom du la mere ba sun borom du la jéppi waaye it dana la dimbali ba bu fekkoon ni dangaa war a génn àdduna ci génnin gu ñaaw maanaam dee gu ñaaw sun borom dana la dimbali ba doo génn àdduna ci génnin gu ñaaw maanaam yàlla mën naa bind ci sag dund ni kii de buy génn àdduna gayndee koy lekk mbaa oto koy mbëkk bam tasaaroo ci tali bi yàlla na ci yàlla musal mbaa day accident dee dee gu ñaaw mbaa day lakk ba jeex buy dee yàlla mën na ko bind ci kenn ci ñun ci dundam waaye nag yonent bi alayhi salaatu nee na sarax bi ngay saraxee te yàlla tax mën naa tax sunu borom dindi loola mu bindoon mu def la nga dee dee gu wayef dee gu sedd lool noonu la ko yonent bi jàngale kon bokki jullit joxe sa alal te yàlla tax yiw wu magan ci daa mel ne waxtu waa ngi bëgg gudd waaye nu yem ci bii may bëgg a wax mooy saraxe day indi barke ci alal te day yokk alal day indi barke ci alal yokk alal it teg ci ndax xam ngeen lu am barke lu ne sunu borom da koy yokk te lu am barke lu ne loo ca bëgg a def def ko ca yàlla wax na ci alquranul karim ni alcheytaanu yaidukum alfaqra wa yamurukum bilfahsha wallahu yaidukum magfiratan minhu wa fadla wallahu waasiun alim eh, dafa am ñu daan saraxe léegoo-leeg bu ko defee ñu naan ñun dey li ñuy am day gaaw a jeex buñ ko saraxee waaw mënumaa liggéey ba sonn di ko joxee ci noonu rek yàlla nag mu ni loolu ngeen di xalaat seytaane dong moo leen koy xalaat loo di leen wax ni su ngeen joxee da ngeen ni ñàkk bu leen liggéey ba sonn di ko joxe ndax ba ngeen di liggéey nit ñaa ngay nelaw yàlla mu ni loolu xalaatub seytaane dong la nee na bu leen ko nangu teyit da leen di digal seen alal ngeen koy joxe ci lu baaxut ci ñaawteef ak yu mel noonu waaw dem leen ca tànd beer ga joxe fa alal ñu tudd seen tur nit ñi xam leen yàlla mu ni seytaane loolu la leen di defloo yàlla nag mu ni waaye man seen borom day li ma leen di diggal mooy li ma leen di dig mooy bu ngeen joxee seen alal da ngeen ci am njëggal gu bari lool mu jóge fi man dangeen amit xéewal gu bari lool mu jóge fi man teyit dana yokk seen alal ba mu bari lool ndax man yàlla may ku yaatu teyit maa ki xam lépp noonu la ko yàlla waxe kon yow mi ne am sa alal naan duma ko joxe ndax damay ñàkk wala duma liggéey ba sonn di ko joxe ci maali foro déedéet loolu xalaatub seytaane la borom bi nee na joxeel rek man danaa ko dolli tey danaa la jéggal say bàkkaar danaa la yokk wërsëg ak xéewal noonu la ko yàlla waxee yàlla waxaat ci alquran ni wa ma anfaqtum min cheyin fa huwa yuxlifuhu wa huwa raziqin nee na lépp lu ngeen joxe te yàlla dong tax danaa leen ko remplacer lu ko gën a bari te danaa leen ko soppilit aw yiw bu bari soppi leen ko njëggal soppi leen ko aljanna ëllëg yowm alqiyaama mbokk yi benn nettali laa leen di jox ci aaya bi foofu laay tëje waxtaan wi incha allah nettali la boo xam ni man ci ñu ko dund ci laa bokk waaye li tax ma di ko nettali mooy gis naa ni njariñang ci yiwang ci tey nit mën na koo dégg ba tax muy jox joxe alalam te yàlla tax dama nekkoon Kawlax ci benn internat nekk faak sama benn mbokkum jullit bu ñuy wax Omar Gueye li tax may tudd turam mooy jëf ji ci boppam moom bëggul kuy tudd turam waaye may tudd turam ngir jëf ji ci boppam benn bis mu amoon bor bu mu war a fay mu toll ci ñaari junni maanaam dix mille francs CFA mu ngi ko war a fay maanaam timis ñu toog ba deux heures maanaam quatorze heures moom nag dafa may faral di wax lu bari ne ma man de ci alquran amul dara lu ma ci wet di ndaxub jullit la waaye bokk na ci aaya yi ma gën a dund mooy aaya bi yàlla naan wa ma anfaqtu min shay'in fa huwa yukhlifuhu aaya bi yàlla di wax naan lépp lu ngeen joxe ma joxaat leen leneen lu ko lu ko gën a bari ndax nee na moom mësuta seetlu ci addunaam ci dundam nee na mësuta seetlu fu mu joxee nit te amut leneen lu ko sun borom jox lu ko gën a bari moo tax aaya boobu dana aaya la boo xam ne da ko dund ay yoon léegi nag nettali bi mooy bi mu waree fay borob ñaari junni bi deux heures mu ñëw ni ma waaw sa waay ndax xam nga ni timis laa war a fay sama borob ñaari junni yi mane ko waaw waaw mu ne ma man de junni rek laa yor ndax yoroo foofu ab junni lebal ma ma ne ko déedéet yoroo ma junni de mu dem ci keneen ku ñuy wax siise booba siise nga fa mu àbbu ko junni siise ni ko man de awma junni maanaam cinq mille mu génn dem ci boutique ba ca koñ ba kooku ab xaritam la di ko seeti pour àbb ko 5000 mu dem fekk fa borom boutique ba waaye mu fekk fa ka koy faral di jaayal kooku ni ko ah man de xam naa ni yaag diw ay xarit ngeen waaye nag daf ni ma soo fi nekkatee bul abal kenn te ñëwut ma kon mënuma laa abal teyit amul téléphone bu mën a woowee kooka pour wax ko soxlaam mu daal di dellu waat jot na am ñu mu wër sax ci ay am di jàmmam waaye yàlla dogalut mu amub junni mu ñëw ne moom man de awma junni te bi ma koy wax booba 4 heures jot na 4 heures maanaam 16 kon wër na ba 16 heures amut mu ne ma nu may def ma ne ko ah nañu wakkirlu ci yàlla rek yàlla de baax na nit loolu laa ko mën a wax ndax awma cinq mille ba ma ko abal ma ne ko ah yàlla de ko baax la nañu wakkirlu ci yàlla mu ne ma sa lenn da laay def ma ne ko lum doon mu ne junni bii ma yor akas néew laay dem saraxe ji subhanallah man nag ci sama bopp ma ne ko ah sa yaa ngi soxla ñaari junni am nga junni di ko joxe mun ma dama koy saraxe de dama koy joxe ji ci koñ ba am na fa koo xam ni léegoo-leeg day ñëw foofa ca daara ja doon abbu léegoo-leeg wala muy sàkku ndimbal ndax ñàkk gum ñàkk euh, mu dem ca moom ni ko am ma jox la junni bi te yàlla tax jox naa la ko te yàlla tax du ñàkk di ci mën a dund ay fan soxna soosee ñaanal ko kontaan lool lépp maa ngi fekke man mu daal dellu si toog ma ne ko léegi nag man ma yoruma benn dërëm waaye gëm naa ni sunu borom mën na maa jox ndax wa ma an anfaqtu mi ngi fi wa ma anfaqtu min shay'in fa yuxlifuhu mi ngi fi ma ne ko ah, yàlla baax na loolu 16 heures la am nu julli tàkkusaan ci jàkk ji ba noppi yéeg ci kaw booba internat bi am na ci suuf ci kaw ñu yéeg ci kaw toog benn ndong ci ndong yi ñëw ni ko géy géy am na ku lay seet ñu wàcc xool benn oto gaare waa ji mu ni Kaffrine la jóge fekk ca benn famille bu nekk Kaffrine su ma ko tuddoon dañ ko xam famille bu fa xaw a siiw la am nañ fa ay ndongo ci daara ji kenn ci ñoom ni dama doon tukki bitim réew war a dem dakaar ma ne naa jaar ci daara ji xool xale yi bala maa dem ndax yaakaaruma gaaw a dellusiwaat mu ñëw seet daara wax xale yi waxtaan ak ñoom ñaax leen ci ñu gën a góorlu ba noppi daal di yëkkati ñaari junni jox xale bi ci boppam ne ko am maa la ko may yëkkati ñeenti junni jox géy ni ko lii nag na ngeen ci warga yéen ustaas yi fi nekk da ngeen ci warga jënd leen ko warga daal di dem bi mu demee xale ba ci boppam yëkkati ñaari junni yéen ni ko géy am ma dénk la ko kon géy yor na juróom benn junni fi mu toll nii géy di ma léegi nu ñu def fekk sii fa ñu ne ko léegi comme que ñeenti junni yi ñoo ko moom ñaari junni yi nañ ko jël jëndee ko wargaak yu ñuy jëfandikoo ci daara ji ñaari junni yi ci des jël ko fay sa bor ñaari junni xale bi nag nga dencal ko ko noonu la aajoom fajoo ci lu gaaw bokki jullit lii maa ko dundoo ci lu gaaw nettali gi nag bëgg nit ñi dégg ko man cee jariñoo te it ñu xam ni euh, sun borom loo ko jox mu delloowaat la ko ca noom gën a gaawee waaye nag loo loolu li mu def gëm-gëm la bokki jullit yi maanaam nit ki faw gëm-gëmam toll foofu xoolal ki am soxlay ñaari junni ñaari waxtu wala ñetti waxtu moo ci des fexe na ba amub junni saraxa junni ba di xaar suñu borom loolu gëm-gëm la bokki jullit yi kon kiy joxe nda gëm ni suñu borom tabaraka wa da koy jox faw yonent bi alayhi salaatu wasalaam benn bés mas naa yor leketu tàndarma jox ko bilaal ni ko séddaleel joxe ci nit ñi bilaal di joxe di joxe di joxe di joxe ba leket gi bëgg a jeex mu gestu yonent bi alayhi salaatu wasalaam bëgg ko woon ci bët ni ko leget gaa ngi jeex di yonent bi alayhi salaatu wasalaam soññi bilaal ni ko bilaal joxeel joxeel bul ragal mukk ni dana ñàkk même bu jeexee dana dellusiwaat suñu borom dana ko indiwaat loolu la yonent bi wax bilaal ni ko joxeel joxeel bul xalaat jeex gi joxeel rek bul ragal mukk ci suñu borom ni dana ñàkk day indiwaat kon gëm-gëm ci wàllu joxe noonu lay mel bokki jullit yi waxtu wi daa xaw a euh, gàtt lool moo tax nu yem foofu ba beneen yoon du joxe yeneen misaal ci saxaaba yi liñ doon dund ak ci joxe maa ngi ñaan sunu borom tabaaraka wa taala mu boole ñu ca ña nga xam ne ñooy joxe seen alal te yàlla tax yal na nu yàlla defal wërsëg woo xam ni daan ci mën a joxe te yàlla dong tax waaye yal na nu sunu borom nangul mbooleem sunuy jëf te jéggal ñu sunuy juum tekk sunuy bàkkaar te it yal na ko sunu borom defal mboolem jullit wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.